seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang tàmbale yéen yéenekaay yi ak loxo bu daj gémmiñ ca yàlla ca yàlla ñun fu ñu jëm lii kenn mënu koo wax yëral xëtu yéenekaay bii di l'observateur ne ne ba nguur gi mu ngi ci gundaandaat ba daxal ma daax bu neex a neex a neex rawatina nag ca palais présidentiel bu kan président Macky sàll yër leen yéenekaay bi di l'observateur lu ñu yëngal nee nañ li nga xam ne moom lañu teg sénégalais yi ne leen seere leen seen tiir réew mi dafa métti faaw ñu jagal li ndekete yoo ñoom ña ngay roppat alaltu réew mi di ci def lu leen neex jëlal 1,3 milliard la ñu génnee yokk ko ci gafaka fii nga xam ne moo di pale présidentiel pour lan ay indemnité kenn xamul loolu lan la bés bu nekk 1,3 million de carburant nee na moom lañuy ñuy lakk ñu ne déetawaay ñu ne pour jël ay li nga xam ne mooy hélicoptère ak yooyu 4,3 milliards lañ ci budgétisé ñu ne xanaa fa la yem ñu ne déedéet pour jënd ay vedette un virgule cinq milliards maanaam daal lu leen neex lañ def ci alalu réew mi di ko caxat-caxatee ca palais présidentiel ñenekaay bi di l'observateur na Macky yemul ci loolu nee na Ousmane Tanor Dieng kontaan naa lool ci ni nga yoree au conseil collectivité territoriale yokkal na ko gafakaam jox na ko un milliard trois cent quarante millions te nag ma wax leen lenn amul benn organe de contrôle bu ko am fit saytu ko yéen kaay bi la téeméer xool leen li OFNAC def 600 million ñu jox la ko nga jox ñu rapport boo xam ne toto tàpp paate la dara nekkul ci biir rapport bi ba tax yéen kaay bi la téeméer waaw luy njëriñu OFNAC luy njëriñu OFNAC moo mat a laaj nee na est-ce que Seynabou Ndiaye Diakhaté mii mënuñu ko sax toppee incompétence ak détournement deniers publics ndax nag lii teguwul ci yoon benn yoon nag moom li leer ba leer amul fit ne ma ngay enquête la xew ca concessionnaire ndox mi ndax nag yéex na lool ba ci biir yéene kaay bi Le Quotidien SDE maire DG Bal ne situation bi kenn xamul foo taxawee kenn xamul lépp la ndëm kurus ci mbir mi yéene kaay bi la témoin na nguur gi fi nekk nii moom la ñuy soupçonné ne dafa bëgg a favoriser beneen partenaire te nag ku njiit yaag fay Faye Walfadjri moo ñu ko wax ne lépp moom lañ ko joxoñ baaraam lu muy dugal ci dossier boobu moo mat a lijjant yi inaa ko jàppoo gañe nañ benn bataay ndax yéen kaay bi Les Échos ne am nañ audience ak Macky Sall Macky Sall jël décision ne dootuñu ubbeeti benn boutique Auchan tànk teguñu réglementation bu leer waaye bu defalee loolu inaa ko jàppoo moom jël na feeru falame bi jox ko turc tosal yi entreprise bu yées bu bon yéen kaay bi di laaj moo ñu ko wax esclavagisme ak licenciement abusif la ñu nekkee sur ça yëgal ñu ne Rebéril dañoo capté loon benn sous-préfet bu Kataba Amadou Wage waaye mujj nañ koo bàyyi présidentielle 2019 mbir yaa ngi commencé bouger ndax yéen kaay bi di laaj tur bi ñu yëgal ne maître Mame Adama Gueye moom daanaka ci tànk bàyyi la nekk yeneen yéenekaay yi sax ne dafa bàyyi yéenekaay bi la ko disee ne maam aada ba génnee na bàyyi na waaye vingt quatre heures nee na bàyyi bi du dem toog banki loxo de déedéet nee na dañoo war a taxaw doon ay gendarme ngir processus électoral bi leer présidentiel yii yéenekaay bi di enquête nañu wàdd fi nekk nii moo nar a fal ku far seene falu fii ci réewum Sénégal ndax électorat PDS ku mu ko yakkal boo sàgganul yaay falu Pape Sané ne Sonko loolu la xam ndax nag partem amul appareil moo tax mu bëgg sukkandiku ci parti démocratique sénégalais waaye yeneen ñaari candidat ngi nii Hadjibou Soumaré ak Idrissa Seck ñu ngi ootal Ousmane Sonko yéen a kaay bi l'observateur ne ah <laughs> Ousmane Sonko mi ngi bëgg a jiixi jaaxa de incohérence bu rëy rëy la nekkee ñu ne ko ci naka Vox Populi tey ma leeral leen ko moom taxawoon na fii. lu mu yekkul met xam laa da koo fàtte ne du homme d'état daanaka criminel la bu ñu war a fusiller ñu ne tey jii mu ne ku baax la moom da doon defaan suñuy intérêt est-ce que du jiix jaaxa vox populer amal laaj boobu Momar Seyni Ndiaye ne man de dina ma jaaxal lool wadd bàyyi fi ay mëndika ñaa ñeneen yekkal Sonko lu mën a amee ba des Wade daal moom ma ngay ñaax ay nitam yéen léegi nag Les Échos moo ñu ko yëgal ne Maître Abdoulaye Wade bind na lettre ne ñiy bokk ci parti démocrate sénégalais wéy leen rek di wut parrainage yu baree bari valide candidature Karim wadd ak ngañaayam kenn du ci am jeexi jaaxa am na ay candidats nag yoo xam ne ñu ngi wër du wax loo xam ne wax loowuma leen ko ngir bëgg a am ay parrainage ay sosi neen la ay kàcc neen. waaye yéenekaay bi nga xam ne moo di Vox Populi ne PDS ak réew mi ñoom dañuy boy boycotté li nga xam ne moo di ndaje bu international libéral war a amal fii ci ndakaaru ci biir yéenekaay bi di laas Pape Diop bu bokk gis-gis ne nit ñi dañuy wax rek man nguur soxaluma xaalis soxaluma ci biir yéenekaay bi di laas Makhtar Cissé bu Senelec tamit si xootaan suñu nattaangoo journaliste jërë ngeen jëf déglu leen rajo Sow Diané seen Instagram ak